askanu nappum dex mi ñoom lañu doon jëmmal seen bos def nañ ko ci Dagana def ko ci côté Kaffrine Kaolack tey Louga moo ayoon a travers la direction de la pêche continentale ñoo di ko jëmmal fii ñu dajale fii ay way jëfandikoo nappi maanaam ay maréeri yi jóge ba euh, nu mu tëddi Linguère am ay mool am ay soppikatu jën ñu ne kon foog ñu teg kuréel gu leen lëkkale gu mën a boot seen i mbébét di ko yéegal ci kaw waaye itam di mën a nësër ci yenn jafe-jafe am sur place yi ñuy nag euh, ne su mën a jël buñ juboo am ay tëlliñ tànk tënk ba préfet wala ministère ma leen jëla ay dogale xam ne ci ay tere ak i euh, nu mu tuddati ay nangu yoo xam ni mën na leen jëmale yombal leen seen liggéey euh, tey ci nappum dex mi euh, jafe-jafe ci wàllu jumtukaay la surtout maanaam teeru yi kenn ñoŋalu ko beneen bi soppikatu jën yi jumtukaay ñi xëy na soppee jën jafe na ci mais aussi côté madère yi installation yi nga xam maanaam yu ma la mandargaale ñu am glace wala fu ñu denc jën bu bare loolu tam jafe-jafe